assalamualaikum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu njiitu kër gi alaaj bugaan di ko ñaanal yàlla dolli ko tawféex dolli ko njabootam ñu ngi nuyu personnel bi nga xam ñoo bootu ginnaaw di nuyu Sénégal yëpp ñu ngi ñaan yàlla dolli tawféex dolli jàmm dolli naataange dolli xéewal si réew mi ñu ngi ñaan yàlla dolli dal ci nit ñi askanu Sénégal te yokk fi jàmm tey dañu ñëw si biir ñëwoon nañ fi temps yële si wàllu fausse couche yi mooy ñuy ëmb muy yàqu ak ñi yara dal tey dañu ñëw fa tey waxtaanee si nan lañuy sàmmee ëmb maanaam ki ngay faj ba yàlla def xëy na tey jii jël na ëmb yan conseil lañ koy jox ba mu mën a mucc si jàmm xam nga ëmb dafa nekk loo xamante ni yàlla dafa am lu mu ko tëggee dafa am benn calendrier boo xam noonu la ëmb bi évolué kon li ca for a xam bu docteur bi bu demee si loolu lay suivre xool ndax ëmb mi ngi dox normal ndax ëmb wax nañ ni juróom-ñeenti weer la dana varier si 38 semaine ba 42 semaines ñu bàyyi si xel baax a baax a baax kon stable yemul si benn natt dafay varier léeg-léeg su fécondation amee maanaam bu manew ko góor ki dajeeg nenu ko jigéen ki ba walax njaan bi fécondé ëf bi liy formé dañ koy wax ëf C'est ëf lañ ko tuddee ëf e diviser wu dina nek ñaar xaat nek nek juroom ñet 16 su ba 16 blast morula lañ ko tuddee bu nekkee 16 blastomère lañ ko wax morula diggante bi fécondation bi amee ba fukki fan fan environ fukki fan bi mbuti juñukaay fu jigéen muy utérus muy lu am solo fixation boobu bu fixé woon nag nen comme nen la dafa am ñaari mbir dafa am lu féete kaw am lu féete si biir li si kaw nag mooy joxe li ñuy wax placenta placenta tey bu di ki amee doom mooy nekk ànd bi daanaka placenta boobu daanaka mooy nekk barrière diggante ku jigéen ki ak li euh, embryon bi si boppam foofu embryon lay daal nekk su ko defee maanaam bu nit ki xale bi waree noyyi si foofu lay jaare bu waree jot deret fa lay jaare bu waree lekk fa lay jaare bu mooy joué si rôle filtre maanaam saleté yeeg bi yëpp moo koy bloqué bàyyi li am njëriñ rek ñëw kon loolu mooy rôle embryon bi la sa biir nag mooy doxe mooy joxe embryon bi la sa biir nen ba moom mu joxe embryon muy partie interne bi kon ñaari partie noonu lay demee euh, ñetti weeru njëkki nag évolution bi dina dem ndànk-ndànk ndax ni ëmb bi di évoluer si ñetti weeru njëkk yi bokkul ni muy évoluer si juróom benn weer yu mujj yi ñetti weeru njëkk yi ndànk-ndànk bu demee ba ñetteelu weer bi maanaam ñeenteelu weer bi nag si la affaire bi accéléré accéléré mu tax jigéen dina ba am ñetti weer léeg doo xam bu baax ne ëmb na euh, si weer bu njëkk bi nag si la xol bi di formé wu système bi ñuur gi formé ndax yooyu mooy yi njëkk a formé wu système bi yuur gi ak colonne vertébrale bi bu demee ba si ñaar fan yeeg benn si la xol bi commencé di tëgg vingt unième jour après fécondation suñ demee ba weer bu njëkk bi di jeex si la li ñuy wax bourgeon di génn fi loxo yi war a sosoo ak tànk yi fa la commencé di génn bu demee si ñaareel weer bi nag daanaka organe yëpp day daal di feeñ day daal di génn su boobaa nag bu ñaari weer yi jeex dinay boo don doon ji day nek 3 cm, di peser 11 grammes bu ñu doon si ñetteelu bi ba fi ñett weer yi jeex manam dina nek 8 cm, di peser 30 grammes lolu moy évolution normale juroom ben weer yi dina dem ba pratiquement 30 cm, di peser 800 grammes à terme nak day nek 50 cm, di peser 3200 grammes kon lire buy juddu bu dé poids normal bi warul sori 3000.

ñetti weer bu jeexee ñu defal écho sixième mois bi échographie à terme defal échographie xool ndax ëmb bi mi ngi évolué normalement moo tax euh, toujours ñu war di gërëm suñu mbokk docteur yooyu ndax xarañ nañ ci mbir moomu di nga dem ba période sax léeg si deuxième ou troisième mois bi daanaka deuxième mois bi sax léeg-léeg bu ñu xoolee dañ lay mën na kii sexe bi daal formé wu ñun la kii góor loolu jigéen la kon loolu yàlla may leen ko conseil yi ñuy dolli mooy nañ wàññi xorom bu ñu bëggee mucc si yenn feebar yi nañ wàññi xorom bu baax a baax a baax xorom boobu mi na koy wàññi ak lekk yi ñuy toggee xorom ak yi ñuy denc xorom na nga ko wàññi bu baax réguler sa consommation sucre na sucre bi yam aussi ngay jël crudité lu bëri ak légume ak fruit nay bëri sa lekk légume ak fruit wàññi yu nii nii surtout les graisses saturées beurre neen chocolat am graisse na nga ko wàññi waxuma doo ko lekk na nga ko jël mais na nga ko arikante limité ndax lekk boo si jël rek am na njëriñ man wax du ma wax nit bàyyil lekk mu ko mais wàññil laa lay wax ndax loo bàyyi rek completement am na njëriñ lu ma mën a indil kon ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax tey naan nag boo ëmbee bañ xale bi taayee dangay naan boo dee naan di jël légume ak fruit yaa ngi def la waale en même temps xale bi régime parce bi yow lay topp rek boo lekkee bu baax mu jël poids boo yemal sa lekk moo tax léeg-léeg jël poids yi ëpp na indi césarienne yi donc ñu bàyyi xel bu baax a baax ba te booy jël légume ak fruit na la aide ba seere doo koy dem ndax ñu bëri jóge leen césarienne tey li koy waral mooy dañuy ëmb am hémorite di seere xat bu ko defee li ñu mën rek mooy xotti mbir bi gën a xale kon boo soigné sa lekk man ba ñoo wax di dañu leen césarienne seen premier ëmb mais bi ñuy amaatee doom conseil dañ ko suivre dañu am doom normalement sans césarienne kon loolu ñu bàyyi si xel bu baax a baax a baax te boo demee ba cinquième mois bi nga wut xobu Dakar dafay aar ëmb ba kër nga am doom doo sa loxo ba ko defee nga baxal ko si liis ndox senk di ko naan par kaasu ataaya boo ndekkee boo ba jigéen ju koy boo demee ba toll sa weer nga commencé jël infusion persil bu yem rek jëlal benn poignée haché ko def ko tàng segg ko di ko jël par kaasu ataaya boo ndekkee boo año ba tax booy am doom doo ko yëg garab gi jox toll nag muy la Landolphia sénégalensis moom dafay gaawal accouchement boo nee ba toll si liggéey bi liggéey bi commencé baxal ko di ko naan si kàttanu yàlla boo amee xob benn ngëb rek nga baxal ko si liis ndox di ko jël par genn wàllu kaas boo dékkee boo añee boo deful ndànk sa kër ngay wesina waaw boo deful ndànk moom booy accouché doo ko yëg muy xobu tol muy la Landolphia sénégalensis ñu ñëw si question ni ngeen di tey ku njëkki def ni moom daal euh, dafa bëgg daal ñu wax ko recette bu simple boo xam ne du jafee am te baax si wàllu kàttan lu yo kàttan grain xabar sawda xabar sawda muy nigel grain de nigel ni mu amee diw xabar sawda amee ay doom doom yu ñuul yooyu ngeen di gis muy xabar sawda del def boo xëy rek cof si tuuti rek boole ko di lem lekk yooyu rek daal di àggal ak lem bi si kàttanu yàlla day doo gaaw a tële ñaalu question bi kii nee na moom euh, dafa am li ñuy wax oligurie maanaam ndoxam daal dinay saw mais ndox du saw ma du bëri saw nag bu barewul li koy causé na boo dul naan lu bëri doo saw donc li ñu lay jëkk digal mooy ngay naan te bu mënee am xobu saw xobu ngeer saw moom ba bëggee mu bari ngeer ak saxaw rek moo si gën a gaaw cofal fu nekk rek nga bu loxo nga baxal ko si litre ndox di ko jël par genn wàll kaas boo ndekkee boo wàññee ba si kàttanu yàlla da nga saw normal ñun tàggu fii dañ jox naan solution